ajjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin 2016 amaloon nañ fii ci yoonu njurul ubbiteg jumaa ji nga xam ni sëriñ Amsatu Mbàkke ibnu sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moo ko doon taxawu ñu fàttaliku ni moom moom sëñ Amsatu Mbàkke moomu mooy ki nga xam ne moom la sëñ Saaliwu dénkoon euh, lépp lu jëm ci kër sëñ Tuubaa yi ci taxawu ak defaraat ak bépp xeetu liggéey bu mu mën a doon loolu nag moo taxoon moom mu taxawu liggéey bi nga xamante ne bi am na foofu euh, defar fa kër Serigne Touba ak jumaa jooju nga xam ne moom lañu doon ubbi tey jii ca ñu ràññee woon ci teewaayu kilifa yi diina yu bari ci ñooñu bokk na ci Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abdou Lahad Mbacke euh, Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abdou Khader Mbacke ak Serigne Mouhamadan Mbacke moom Serigne Abdou Lahad Mbacke ak Serigne Mouhamadou Lo Ngaabu Serigne Koso ibnu Serigne Mountakha Mbacke sëriñ maam Cheikh Mbacke ibnu sëriñ Fallilou Mbacke ak yeneen kilifa diine. ñu jàpp it ni am na beneen liggéey boo xam ni euh, tàmbali na ko mu jëm ci taxawal fa daare alxuraan ak bépp xam-xamu diine ci jooju daara su noppee képp koo xam ni bëgg ngaa jàng rek mën nga faa ñëw ci lu ngay fay dara. kon loolu di liggéey yoo xamante ni bii amaloon na ko ni nga xam ne noonu la ko baaxoo amale ci kër Serigne Touba yëpp ñu ñaan yàlla suñ borom mu yàgg koo taxawee ànd ko ak taaliba yëpp ci barke Serigne Touba.